وتقبل شفاعته من أمته ورفع درجاته صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الإيمان نحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بك جلتي كان أبو إنسان تيالا جلسي سانغ سانغ محمد صلى الله عليه وآله وسلم دلين نيباخ ينيا خمني ينيا top émission bi yebul bis bi fa tabarakallah delluwaat nañ si suñu waxtaan yóbbalu bis bi yóbbalu bis bi ñuy waxtaanee ci secret xam ngeen yent bi sallallahu alayhi wa sallam njàngaleem dafa fasax dafa yaatu moom alayhi salaatu wassalaam ndax nag moom kese moom kot moom dong moom la yàlla subhanahu wa taala joxoñ moom alayhi salaatu wassalaam wa atiu allah wa atiu rasul topp leen yàlla ngeen topp yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom la yàlla subhaanahu wa taala joxoñ wa in tutiicuuhu tahtadu boo ko toppee rek ngeen daal di jub kooku mooy kan kooku mooy alayhi salaatu wassalaam kooku mooy yonent bi sallallahu alayhi wa alihi tax bokk na ci jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci garde secret yonent bi sallallahu alayhi wa yana tabi alayhi salatu was salam dafa ñew ci anas ibn malik ngena anas خادم الرسول صلى الله عليه وسلم انس مم مودون ليغيل ينتبي عليه الصلاه والسلام بكو يايام ديكو فا اندي فوف مو نيك خالي بو ام سليم mu daal di jox yonent bi alayhi salaatu wasalaam anas ibnu malik mu daal di koy teg ko ci loxo yonent bi mu daal di koy wax ne lépp loo xam ne soxla nga ko moom yow alayhi salaatu wasalaam na ko xale bi di la ko defal mooy di root ay satal la di yonent bi di jàpp mu daal di koy sottil ndox ak yenn yónnent yi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam da ko doon def ci anas ibnu malik mu daal di yaroo si keppaaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen lu ko jiitu umu sulaym jàmbaar lu mag la mooy saxaaba yonent bi eh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom umu ngeen kéemtaan yi ci nekk moom umu sulaym eh, umu na ci kéemtaan yi eh, nga xam ne jigéen ju mun góor la wallahi siiraam lu lu doy waar la moom umu sulaym amaana du si xej day ñëw si siiraam incha allahu rabbi jàpp benn jour def ci siiraam moom ndax siiraam lu am am solo la wallahi damay damay neex lool di waxtaanee umu sulaym fa tabaarakallah naam naam wallahi fa tabaarakallah tayib yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw si anas ibnu malik anas mooy nettali xadis bi ndax ki koy nettali mooy zaabit saabit moo ngi ko jëlee si anas anas moo toog di ko nettali saabit naam lan la anas wax mu ne ataa dikk na ci man alayya rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne yent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa dafa ñëw ci man bu mu ñëwee fekk ma wa ana alabu ma alxilmaan mu fekk ma man man anas may foowee may foo ak samay moroomu xale kon liñ ci déggee mooy boobu anas xale la ndax bu mu ñëwee dafa ne dafa ma fekk moom alayhi salatu wassalaam may foo ak samay moroom wa ana alabu ma alxilmaan may foo ak samay moroom qaal mu daal di wax ne fa sallama mu daal di nuyoo alayna mu daal di ñuy nuyu ñun ña nga xam ne ñun ñoo fa nekkoon di foo lan nga fay déggee mbokk mi yaa nga fay déggee mooy kilifa boo ñëwee fekk sa doom nekk ak ay moroomam ak ay nawleem waroo kaa gëdd waroo kaa jànni waroo kaa yuuxu lan nga war a def mooy dangay jël exemple si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy daa leen nuyu si ndànk ak lu mu munta def nag fekk rek fekk ko ay moroomam lu mu munta def ñëwal rek nga daal di leen nuyoo nga daal di koy woo ndànk wax ko li nga koy wax loolu la yonent bi sallallahu alayhi jàngale moo tax anas nee na mu daal di ñuy noonu mu daldi di ñuy nuyu ba mu ñu nee ba pare mu dey ma fa baasa ila xaaja mu daal may yónni ci aajo gis nga aajo bi ba léegi waxu ko ci xadis bi mooy moo ñu wan ne garde garde secret nit bu la wolo bo jox la secretam ngal la way dencal koko mais def li séeréer bi wax rek yani ñu wax lu séeréer bi def euh ngor da musa ñëw am jaaxle dem ci mbokk séeréeram wax koko problème bu mu ko waxe fa tabaarakallaahu mu ne yow rek la la wolu motax mo wax lako bu mu ko waxe mom ngor ngor daali dem yaakar na mo ci nek ka nga xam ne nguur waxoon na ko problème bi moom tamit amoon na benn xarit mu woo ko mu ne ah, ah ngóor ñëw ne fi wax na ma ko lii mais damaa bëgg mu yem sama diggante ak yow kese bu ko wax keneen waaw kooku tamit fekk amoon na xarit kooku tamit wax xaritam ah sama wóllore nga de am na li ma dégg fii ah am na li ma dégg fii nag di wax na ma nangam mu ne nguur moo ko ko wax man tamit damaa bëgg mu yem suñu diggante nga daal di koy nga daal di ma koy téyel ngor da xey suba rek dem ci penc ba fekk ñepp diko waxtane fa tabarakallah kon <clears throat> secret nit bu la wolo ba jox lako fa tabarakallah dang ko wara dang ka wara respecté anas moy netali mu ne mo daal di mooy yónni ci daal di moy yonni ci ben soxla bi ma yonne ma bàyyi sama morom ya dal di waxu dem ci yónnente alayhi salatu wassalam lan lañ fay déggee waatee bokk jullit yi mooy yow mi xale sa waajur bu la yónnee fexeel li nga mënta bàyyi yaani li nga doon def yëpp nga bàyyi ko nga daal di dem ci yónnente ba nga xam ne sa waajur moom moo la ko moom moo la ko sant léeg-léeg nga gis ab soxna bu nekk ci kër yaayam sant ko liggéey mu ne ba ma pare li may def ba ma seetaan ba ma pare seetaan teleek ba ma pare si sama portable beeg ba ma pare si sama film beeg ba sama jeu ba sax da ngay dégg ko ne bàyyil ba ma pare si li may def ba pare nga daal di koy defal déedéet déedéet nan lañ la sant mooy lépp loo xam ne gantuwul sa waajur defal na la ko fexeel nga def ko mais sa yón yónni sa waajur yónni la nga war a dem fi ñu la yónni nga ne yow tànk sa soxla bi fajowul ba pare doo ko doo fa dem loolu du du respect du yaruñu lislaam déedéet ndax bu ñu fàtte ne borom subhaanahu wa taala moo ñu wax ne wa qada rabbuka an taabudu illa iyaah kon nag wa bil walidayni ihsaana bokk na ci rafetal diggante wayjur mooy bu la yónnee nga daal di koy nga di koy jëfe nu mu gën a rafetee nga daal di koy defee noonu léegi anas guddee ñëwaat ci kër gi bu mu ñëwee yaay ji di ko enquêté foo nekkoon bokk jullit yi lan nga ci déggee ba léegi mooy nit ki dafa war a am responsabilité ci ay doomam yow faale woo say doom xamoo ban heure lañuy ñëw ban heure la ñu tëddi si sa yoon nekku ci loolu doy waar la waaw yaakaar naa sax yow boo amee ni ngay sonnee si say jur xarak nakak fasak bu demee ba yéex a ñëwaat da ngay génn wëri ko ba mën a ñëwaat ci kër gi fa kay fa nag doom sa doom nekk si li mu nekk xamoo ko ba ay guddi lijjanti woo ko fu mu nekk moo fa bàyyi boppam ngay wax loolu ngay wax loolu musiba gënu ko rey wallahi yàlla na si yàlla musal moo tax bi anas ñëwaatee ci kër ga yaayam dafa doon enquêté wu foo nekkoon ba guddee mu daal di koy wax ne yenent bi alayhi salaatu wassalaam moomu yónni woon ci benn mbir mu ne ban mbir mu ah loolu nag sirru la yaay li nga nekk sama yaay yëpp duma la wax sirru wala secret ba nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko yónni woon yow duma la ko wax yaa ji daal di kontaan daal ah fa kon bul nettali feneen la nga xam ne li la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yónni liñ ci déggee mooy que anas nekk bu mu nekk xale jàngal nañ ko garde secret yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon jàngale mooy nit ki dafa war a mun a garde secret mbokku jullit bi boo xamalee secret nit ki taxaw ci palaato télé yi pa taxaw ci live yi di ko vilipande di génne ay mbóotam loolu du jàngale alayhi salaatu wasalaam xëy na kay jàngale iblis la wala jàngale keneen la mais loolu moom bokkul si jàngale alayhi salaatu wasalaam kon yegg nañu fi ñu war a yëkkatee suñu jotaay fa tabaarakallah ñoo ngi nuyu bu baax a baax kilifa gi Eh, sëñ Habib si fa tabarakallahu di ko ñaanal yàlla yàlla sàmm ko kàttanal ko yàlla yàggal ko suñu kanam si barke woy jërëm bu tedd bi Moulay Abdul Aziz Dabakh radiallahu taala anhu ci barke maamam bu tedd Seydil Xaaji Malik si radiallahu taala anhu si magam ju baax ja mooy Sidi Aboubacar si ak eh, fa tabarakallahu usra maliki bi yëpp ñoo ngi koy nuyu moom sëñ Habib fa tabarakallahu di jël suñu nuyoo di ko teg ci loxo pour mu teg ko ci xalifa bi fa tabarakallahu yàlla yàggal ko fi fa tabarakallahu sëñ Babacar Sy Mansour yàlla yàggal ko fi nga xam ne naal ya nga xam ne naal na ko fa tabarakallahu yàlla may ko mu yeggali ko fa tabarakallah mu julli ak ñun ci jumaa ji yàlla na ko yàlla def bi jaahi nabi Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Mm-hmm.